kàddu yi ilimaanu jëwriñ yi ci benn fan ci weeru juin nekk na ab euh, date bi nga xam ne dañ koy daal di fàttaliku ay mbir yu doyoon waar xewoon fii ci mim euh, réew juin 2023 la woon moom Ousmane Sonko mu ngi dalal xelu askan wi jàpp ne li aju ci wàllu nag leeral képp koo xam ne daal di nga cee rek laale dinañ ko daal di euh, def bu ko defee ay xew-xew wala événement yi ni mel Sénégal bañ di ko dund te ñu teewlu ko moom Ousmane Sonko ci micro Denisia Samb. lii defe jëm ci cet gi nañu bale lu jëm ci lu ñuy gis ci ay kër ay yoon ay caniveau ak yu mel noonu waaye nañu bale lu jëm ci nguur nañu bale ba mu set wicc ndax réew mi it sénégalais yi dañoo xamul ni yàlla moo ñu sutural ak ñaanu nit ñu baax ñi waaye bu dul woon loolu 2023 bi ñu génn réew mi li daal réew yu bëree bëri mënoon na fi am te dara waralu ko lu dul ku ñu dénk ne ko dañu laa dénk pour nga sàmmonteeg réew mi sàmmoon sàmmonteeg askan wi joxal yoon nga def safaan président nga moo xam ministre nga moo xam magistrat nga moo xam moo xam moo xam moo tax boo buggee nag bale boo yaakaar ni bale mbedd mooy moom rek la ñu war a bale juum nga ndax nëga si daaw ci bësu tey jii di premier juin ni ñi taluñu woon bale ak ji ay garab waaye ñi ngi doon ay lacrymogène ak ay pneu ak internet bu ñu coupé te dara waralu ko lu dul ñu ñu dénk ne leen jaara leen ko fii ñu bako fa nekk ci ay complot ak ay règlement de compte moo tax bale googu nag may dalal xelu sénégale yëpp lañ ca war a def nañ ko def mbir mi dina leer nañ ba ba ñu xam ku def ak lu mu def bu dee Ousmane koo def sénégalais yi dinañu xam bu dee keneen ak keneen def sénégalais yi dinañu dinañu xam waaye nag dafa am loo xam balaa nga koy def da ngay bale ba mu set il faut nga bale justice ba mu set ndax ku ci amoon responsabilité te nekk fa du moom mooy ñëw jaar ci beneen direction bi il faut nga bale palais de la république il faut nga bale gouvernement il faut nga bale feneen ak feneen ak feneen kon set setal gi set setal gu yaa lay doon set setal gu mate lay doon parce que réew mi il faut ñu tegaat ko ci yoon ba Sénégal yi nekk ci jàmm ñu jublu ci liggéey ci la ñuy daal di desandi ci lancement journée set setal setal sunu réew boobee département bu Tëngéej la ñuy desandi ak limaanu jooriñ ba ko jiite foofu ci Sangalkam nga xam ne nekk na barab bi ndoxub taw yi di faral di sonal lool barab bi nga xam ne itam jafe-jafe ci eh, lu neex waaye daal di nag eh, nekkee ca mbeddu buur ya rawatina zone yi nga xam ne kenn amul sañ-sañ daal di fay dëkk wala daal di fay nag eh, tabax daal di nay xam ne ne ngir nguur gu Sénégal dina fexe rek ba wàllu dëkkuwaay yooyu la mu ca war a joyante mu daal di koy nag def xam ne na itam tabax ab bassin rétention boo xam ne eh, ca zone de captage lay zone de captage lay doon ngir ndoxu taw yi mu koy gàttandu te ngir denisi assemb recensement bi ñu amaloon jëmale ko ci kër yi nekk ci gox yi ñu dippee non aedificandi maanaam kenn war fa tabax tollu woon nañ ci ñetti junne ak juróomi téeméeri cité yoo xam ne ci yoonu ndox la ñu nekk fii ci Sénégal moitié bi nekk ci département wu Tëngéej waral teewaayu Elimaane jëwriñ yi Ousmane sonk fii ci Sangalkam ñun ñu tàmm woon ñëw fii la tax mooy am na loo xam ne problème mu assainissement ordinaire la mooy quartier boo xam ne quartier bu normal la quartier bu ñu tabax fañ ko war a tabax la waaye defuñu fa ay canalisation wala canalisation ñu fa def faaxul wala doyul wala yu mel noonu ba quartier ba di am ay problème loolu mooy li gën a yomb a ci mbirum assainissement mu am beneen fànn boo xam ni dañoo dem fa ñu warul woon tabax nga xam ne depuis jamono tubaab bi tubaab bi bi mu defee cartographie ba pare la ñuy wax cadastre dafa ne fii de nit mën na fee dëkk waaye fii nit waru fee dëkk parce que yoonu ndox la olof danaan ndox du bàyyi yoonam moo tax ñu ne woon fii ak fii ak fii kenn waru fee tabax loolu loolu dina takk mënatuñu nangu administration am code de l'urbanisme am code des domaines am les plans euh, directeurs d'urbanisme am les plans détaillés d'urbanisme am lépp ñu ne leen fii nit waru fee tabax ñu seetaan ko sàggane ko léeg-léeg sax ñoom ñooy def lotissement bi tax nit waru fee tabax loolu am na problème ndax fee quartier la mais fii nii terrain ni bi lotissement privé la promoteur privé boobu même su dee titre foncier la am kan moo ko jox lotissement pour mu def lotissement foo xam ne leer na fii ay problème yoo xam ne lu jëm ci responsabilité état la te bu soobee yàlla dinañ ci jël ay matuwaay. ci wàllum xeex mbënd mi nag prévention bi am na ci wàll bu am solo bu ñu sukkandiku ci élimaanu jëwriñ yi ñu ne nag dinañ ci def suñuy kéem kattan ci ay programme yoo xam ne lu ñuy def la ci temps bi waaye ren ren tembe la ñu mën a def moo tax ñu dugal armée ci mbir mi moom ministère am ak ñu ciy liggéey. dinañ lënkaloo ak armée nationale gas fii benn benn mbalka bu mag a mag a mag boo xam ne dañ koy def ci fi nga xam ne moo gën a mu nga xam ne ndox mi bu ñëwee dañ ko essayer récupérer foofu am yaakaar ni loolu mën na wàññi problème bi ci at wi. Ousmane Sonko profité na ci bëccëg bi ñu jagleel wàllu setal ak curage canaux yi ngir waajal nawet te ñu dëppee ko setal suñu réew ngir jëmbat garab laata muy fësal bi la message. ñu wax sénégalais rek ni set setal bi lu gën a yaatu la waaye bii moom lañ leen gën a soxlawee bii la ñu gën a bëgg ñu dugal ci seen loxo la ca des jafewuñu te dinañ ko def bu soobee yàlla. Sangalkam Denisia Sambo pour Sud FM. Euh, Denisia jaajëfal ko dañuy tàbbi ca Mbour bés boobu nag ministre bi ñu denk wàllu njënd meek njaay meek industrie moo ko fa jiite docteur Serigne Gueye daal di nay diggante liggéey fexe ba investissement humain yooyu daal di sax ca département ba dina ci taxaw ñu déglu ko moom docteur Serigne Gueye ak Moustapha Sall. dañuy ne ñëwoon à Mbour euh, pour euh, participer à cette grande journée bi nga xam ne le président Bassirou Diomaye commencé na ko ce matin à Thiaroye pour yee effectivement euh, président Ousmane Sonko le premier ministre aussi wax na ci euh, li tax ñu jóg mooy d'abord réew mi set set ci ñaari fànn set li ñuy waxee au sens propre mooy fexe ba fépp foo xam ne am na mbalit ñu dindi ko fépp foo xam ne setul ñu ñu fex ba mu set fépp foo xam ne dañu foog ne mënatul a set ñu fex ba mu set waaye li ciy amaat euh, beneen importance mooy set ci wàllu donc au sens figuré mooy maanaam honnêteté maanaam nit ñi jub nit ñi nekk nit ñu set également ci seen xalaatin ci seen jëfin mais fexe ba lii aussi bañ a nekk rek un coup de euh, kii de dans l'eau loo xam ne sénégalais yëpp dañ ko dugal seen xol ak seen xel maanaam xam ne sa quartier fi nga dëkk dafa war a set fi ngay dox dafa war a set sa dafa war a set poubelle yi nga xam ne loolu la neex nga sànni fa les pots de banane yooyu yëpp Sénégal bu ci nekk dafa nga xam ne c'est un changement changement boobu nag dafa laaj changement de comportement ci chacun d'entre nous ku ci nekk muy mag góor ak jigéen dañ ko war a jàngale ci école yi mais ñun mag yi adultes a jàngal suñu doom yi ñu jàngal ko seen collègues yi nekk dans les écoles donc c' est un jour nouveau seet boobu nag dafa dem ba ci seetaay également ci suñuy xol ak suñu xalaat seetaay ci honnêteté bi seetaay ci lu ñuy def ci lu rafet seetaay ci yéen a sa sa sa sa sa morom lu baax lii nag du yem tey la différence mooy yàgg nañu def opération seet seetal mais da doon yem benn jour lii nag dañ ko bëgg a def chaque mois dans chaque commune dans chaque quartier dañ ko war a def su ma jógee Mbour nii a def dans toutes les communes centrale dem à Fadiouth dem également à Fissel partout dans les dans les communes de Mbour pour fexe ba le pays la mën a set njëktal bi nga xam bëggoon naa ko wax aussi mooy euh, lii dafa nekk aussi beneen euh, kii liy wane rupture suñu rupture bi du caaxaan on a été élu pour faire cette rupture la il faut dañ ko war def sur tous les plans nag ci wàllu liggéey pour xale yi am fexe ba am liggéey ci wàllu également euh, transparence bi fexe ba ku lu jub ñu jubanti moom lañ président wax jub jubanti loolu nag dafa nekk loo xam dañ ko bëgg a def partout ci réew mi ci quartier yi ci euh, mosquée yi partout dans dans le pays ci la ñuy daal di desandi ndax jëwriñ bi ñu dénk wàllu urbanisme eh, daal dinay amal eh, bés bile eh, investissement humain yooye foofee ca Médinatul moom Balla Moussa Fofana la mu gis mooy faaw ñu samp ay centre yoo xam ne dañ ci daal di traité lépp loo xam ne rek ay pôlu mbalit la ñu déglu ko moom Balla Moussa Fofana ak Adama Ndiaye. sentiment bi rek mooy sant suñu borom ndax gis nañ ne Sénégalais jóg nañ kenn ku ci nekk di jéem a setal environnement am di jéem am impact bu positif ci environnement mu nekk lu nga xam ne dañ koy saluer ñun tey dañoo ñëw rek jàpp ci liggéey bi ndax mbir mi mbir mi askan wi la war a doon mbiru communauté yi la war a doon nekkul mbiru jomaay nekkul mbiru sonko warul nekk mbiru Balla warul nekk mbiru keneen moo tax biñ ko lancé ñu ne lépp luy ay t-shirt ak yooyu ñu daan def nañ ko bàyyi nañu dimbale nit ñi ci matériel rek te ku ne sax sa kër war nga am benn pelle râteau ak benn brouette yaakaar naa léegi na ñëpp góorgóorlu ba ku ne kër nga am sa pelle sa râteau sa brouette parce que daanaka loolu mooy liggéey bi man bi ma naa ne équipement yi ñu soxla loolu la mën nga ci def lu solo te je pense que rythme bii bu ñu ko continuer d'ici deux trois quatre jours fii moom dina am beneen visage maa ngi doon wax ak responsable aménagement bu Diourbel ne ko bëgg naa ñu xoolaat ban aménagement la ñu war amal site bi def ko mu doon loo xam ne nit ñi buñ ko gisee dinañ fàttaliku ne fi ay mbalit fi nekkoon waaye tey beneen cadre de vie moo fi nekk day am solo ci fàttaliku di wax rek ne vraiment warul doon lu exceptionnel li ñuy def nii dafa war a dugg ci jikko yi dugg ci comportement yi nekk habitude premier bu nekk weer wi ñu dugg am impact suñu environnement te environnement boobu ñuy defar day am impact suñu ci wér gu yaram ci santé ak ci dëkkuwaay boo xam ne day am solo ci niñ koy dundee donc loolu daal moo nekkoon initiative bi ñuy remercier véritablement le président de la république mi nga xam ne moo ko initié mais surtout jaajëfal communauté yi nga xam ne foo leen fekk tey jël nañ ko def ko une véritable appropriation SONAGED mi nga xam ne ñu bëri nañ ko jàppee rek mooy dañuy gis agent yi ne ci terrain bi di nettoyer am na yeneen agent yoo xam ne seen liggéey mooy wax ak municipalité yi dugg ci kër yi yee nit yi ñu war am xëy na nag loolu du du nit ñi di gis boo xam nañ ne bu nit ñi di moytu tilimal xaalis bi ñuy def ci set sax dina wàññeeku donc loolu loo xam ne conscience pour citoyens yi daf ci am solo bëgg nañ aussi ñaax municipalité yi ñu gën a góorgóorlu ci yee nit ñi ci comportement yi loolu tam mairie yi la ñaan ñu gën ci taxaw gën jege nit ñi dimbale nit ñi ñu am au moins de tri ak lépp loo xam ne dañ leen dimbale pour que nit ñi bu buggee séparer mbalit mi c'est mbalit mi nga xam ne mbalit mu attention ci suñu cadre de vie. loolu lu mel noonu lu am solo ci ñun comme ni ngeen ko xamee ñun bëgguñu sax am ay dépôt sax normal parce que li ñu bëgg mooy déchet bi bu ñëwee ñu trier ko tout de suite traiter ko tout de suite li war a nekk combustible solide ñu def ko combustible solide li war a nekk engrais pour mbay mi ñu mu nekk engrais la ca des ñu def ci ay pavage ñun loolu mooy suñu option. Euh, ci la ñuy daal di desandi ndax beneen jëriñ bi ñu denk microfinance ak économie solidaire moom ca Bambey la nekkoon moom Aliou jon euh, wax na ne bés bi daal nekk na xàpp euh, dooleeku bu am solo ci wàllu koom fii ci mim réew rawatina ci gox goxaat yi Aliou Dione ak Adama Ndiaye. doxal ko ñi ko seq dañoo bëri li ñuy wax écosystème bokk na ci état au niveau central bokk na ci état au niveau déconcentré comme ñoom préfet ak service yi mu yore couche yi nga xam ne ñooy yi gën a maanaam dynamique muy jeunes yi muy PAM yi muy askan wi de manière générale askan woowu nag moom la action citoyenne yi concerné lii li muy tekki ci symbolique mooy euh, li ñuy def ñun état suñu bopp lañ koy defal ndax citoyen lañu waaye yéen lañ koy defal yéen ñi nga xam ne yéen ay citoyen ngeen léegi su ko defee bu ñu ñëw jàpp biñ ci jàpp dafa am lu muy def ci wàllu euh, jokkalante bi am diggante état ak citoyen yi benn ñaareel ba it day xam ne tey ci wàllu développement tey jii képp ku fay doon taxe fay nga taxe tey kon loolu dafa am solo ndax li tax ma ne ku nekk ku fay doon taxe fay nga taxe tey bu ñu defoon bilan bi maanaam boo jëloon tey benn entrepreneur nga ne ko damaa bëgg mu nettoyal nettoyal ma dëkk bi amaana lam lay fayee ko mën na nekk quarante millions mën na nekk cinquante millions mën na ko na mën gën a yées waaye loola tey pourtant ñun ñëpp ku nekk joxe nga taxe te génne woo xaalis ci sa poche donc loolu moom mooy aspect économique bi may wax naan dafa am ci économie benn pàcc bu ñuy faral di ubbi di fàtte muy l'économie immédiate maanaam koom gi sës am na koom gu fi nekk te léeg-léeg dul aj sax xaalis booy génne waaye mën nga cee def lu am solo loolu foofu la action citoyenne yi dugg donc loolu moo taxoon euh, président son excellence président Diomaye wax ne dafa bëgg euh, askan wi ci boppam état bi dina jël lépp luy jumtuwaay def ko ci li ñu war a def waaye mu bëgg di ko ànd ak askan wi ànd ak askan wi la wax léegi ànd boobu nag su ko defee moom mooy comme ñun li ñuy def nii nga xam ne tey askan wi jóg dal di def contribution bu ko defee loolu day nekk loo xam ne état bi day xam ne kon moom li muy def askan wi ànd na ci te li muy def